kon mbokk yi ñu ngi noonu ànd ak yéen ci alxalqa athani wa ashrun yàlla na Zuleyxa nuyoo yàlla yi wàcc naa ko ci yéen ndax man ngeen a yóbbu Yusuf pour mu wax pour mu topp ndigal déedéet loolu moom mënuñu kenn mënu koo defar te nekkul kuy topp daal yomb na da ngeen koo mënul rek def lu tax mu topp sama ndigal yomb na leen da ngeen koo mënul rek ma ma defal sama bopp. dama yabaloon xale boobu nga xam ni Ibrahima la ci kaso bi ngir mu sonal ko xiifal ko maral ko. loolu dafa man di ko waaye du du waaye da nga ko bàyyi muy kontaan ak a bëgg rek mu ni kilifa gi fii ki ñuy yeew mooy koo xam ne dañuy ragal mu daw Yuusuf du daw du daw kat ki ñuy ki ñuy xiifloo mooy ku bëgg lekk waaye kooku talul lekk Yuusuf talul lekk ki ñuy duuma mooy koo xam ni dafa dafa dafa def ay crime def bàkkaar waaye moom deful loolu ñetti yooyu bañ def ko ci kon wax ngeen dëgg انجذبتم جميعا الى يوزرسيف وافتقدتم bu fekkee yéen ñëpp dañu leen a bëgg lu Yuzarsif moo la bëggee wax dëgg daal mooy loolu mooy wér ñëpp ko bëgg. man du ma du ma yedd Zulayxa ni mu bëggee Yusuf waaye Yusuf Yusuf képp ñëpp ko war a bëgg ku yeeyoo loolu dama sàkku ci kalima pour waxtaan ak Yuzarsif léegi yóbbu leen Karima ma mu waxtaan ak Youssouf tey mooy wax ak moom. gardien bi yóbbul Youssouf ca fa ñuy fa ñuy visité seete ak waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ tëj ba fatu ziyaara. cay ndeysaan cay mbëggeel daal foo ko takk rek romb na ah Yuusufa gi noonu ku seen jàkkaarloo kalima ma ñu seet la na ñuy leen bàyyi leen ñu ñun ñaar lan moo beesaat yow kalima ma هل la زالت السيدة زليخة مصرة زليxa fegguwul ba léegi fàtte na lekk fàtte na naan moom Zulaykha depuis ab diir lekkatul naanatul waaye yow du la fàtte ba mukk cay man dama kaa yërëm dama kaa ñeewante bu fekkoon noonu mu toppee bakkanam bu ko soppi woon jëfandikoo xelam ak xelu dana baax ci moom mu ni cofeel ak ak xelu mu ni nekkul ku am ku am cofeel de bu leen jaawale mbëggeelu dof ak ak ak ak cofeel cofeel moom dafa sell dafa yiw waaye kii daa feebar Zuleyxa daa feebar da ngaa bëgg a wax ni Zuleyxa dafa dafa jaxasoo. maa ngi lay waasal ni bu ma joxoon ni ndigal ah dinaa la cobbate ba nga def li mu bëgg waaye Zulayxa jox ma ndigal ci loolu Zulayxa xam na ni Yuzarsif du ko toroxlul looloo tax du du la jox ndigal pour nga dal sama kaw Zulayxa dama ko bëgg te dinaa ko dimbale fu mu mënti toll ngir am li mu am li mu bëgg moo xam mbëggee la ko jàpp moo xam cofee la ko jàpp man bëgguma sax nga am liberté nga moom sa bopp. waaye Zulaykha moom moom laa ko bëggal naa ko liberté boppam dama ñëw ngir sàkk li nga xam ne moom la sàkk loolu la yow yow nan nga bëggee Zulaykha sax yow loolu laa lay laaj nan nga bëggee Zulaykha ban façon mbëggeel nga ko bëgg ak fu mu la toll dëggantaan hmm? ni ma bëggee sama rox gi laa ko bëggee mu ne ma ni ma man nag man ni ma bëggee ni ma bëggee sama yàlla moo ma gënal sama jëmm ji gënal ma sama lépp lépp lu ma jëm rek mooy lu yàlla gërëm ak lépp loo xam ne yàlla daf koo bëgg waaye du lu lay xel bëgg de daana digub digub dëgg boo boo toppoon lu lay xaar nga wàcce ci li mu bëgg defal ko ko di nga moom sa bopp dana la bàyyi nga dem sa yoon soo demee Zulaykha ne ko yuzarsib du moom boppam ngir jaare ko ci bàkkaar ne ko bu mu jaay ruuxam ngi seytaan na dimbale boppam. Ah, xanaa ñoom xanaa ñoom mu mënta woon kii njëriñ bi nekk ci li nga xam ne mooy jigéen ju fegu. cofeel gi ma am ci moom yépp da nga jàpp ni ku bon la. كيف أمكنها بوجود بوتيفار man jàpp naa ne sax Zulaykha xaa baaxul ndaxte jëkkëram ji ni mel ak place bu kawe bi mu amee mu koy weccoog yow mu bon mi am tekki woo dara ah allahu akbar waaye kalima maa la bëggoon sotti bu fekkoon Zulaykha bu xamoon borom boromam ak borom taar bu mag bi wallaay dana dana puus xolom ci bëgg yàlla bàyyi bàyyi bëgg Yuusuf mii ndaxte borom jamaal bi ak borom kamal bi yàlla maa ngi lay ñaan Zulayxa mi nga nga génne ko ci lëndëm gi mu nekk yàlla yàlla na nga feesal xol bi ak leeru ngëm yàlla ne ko bàyyi leen ko mu nekk ci kaso bi ba yaram bi ba yaram bi yàq ci xeet ndax na dana mos ah, li nga xam ne mooy liberté bougé leen ñu dem départ leen ah, mbokk yi gis ngeen la mu am la mu doon wut bëgg ko lam lay wut amu ko Zulaykha talabu bil qumar faqad xasirat nafsaha Zulaykha day fooye bopp day carte rek day fooye boppam daa yaakaar ne dana dana ci génn tatadahara bil qaswa walakinaha la tuflih day jéem a ci doole waaye mënu ko du am du réussir du am ndam ah mbokk yi koo koy kan daa mel ndaw laa ngoog ndaw la Yusuf yabaloon ci baayam mu yóbbul ko ay xibaar waa ji mi ngi noonu alkanaani salaamullahi alayk wa alayka yàlla na jàmm wàcc jàmm yàlla wàcc yow ak yow tamit yàlla na jàmm yàlla wàcc yow nabi Yaaqub mi ñu wax yonent moom laa soxla loo ko sox loo koy doy dafa am benn yóbbante bu ñu ma yónnee ci moom bu jógee Égypte. ndax da wax ci eh, ndaw lu ñu tëj kaso. tafadal maay waaw waaw moo moom moo ma yebal ci moom de yàlla si. waaye gis nga fa taxaw léegi day na doon laaj góor gi ndigal pour mu dugg si ndaxte nit du ñëw rek nga dugal ko ci kilifa direct faaw waxoon ndax kilifa gi pare na pour ak dalal ko. شكله ماذا عن waa xale bi ngay wax. nan la toll ñaata at la am. xam naa at yi bëri na tuuti. xam naa daal fanweeri at ak lu ko ëpp daal. ndax dafa rafet nu mu tudd. est-ce que tuddul Yusuf laaj naa ko turam. waaye nee na ko waaye wax ko daal. waaye daal karaw bi sikkim gi daal kawe bëri na lool ndeysaan. kooku loolu ta taaru bi Yusuf man du munuma réer. سألني عن كبير أهل man taaru bi subul ma nëbb laaj na ma tamit kilifa Kanaan سألني عن فروعه الاثني عشر المثمرة قلت أن laaj na ma fukki famille fukki doom yi nga xam ni am na ko fooj ci ñoom wala moo tax waxulu turam la moo tax mu ni la mu mu wax ni bu na ko may rek bu mu ko laaj turam bu doon Yuusuf la kon dana ko wax ngir baayam ajal da nga xam da laa yóbbante. an tad'u haqqa as-sujana al-ghuraba' wal-makrubin. nee na nga ñaanal ñi nga xam ne kaso yi dañ leen a tëj kaso nga ñaanal leen. yàlla na nga yàlla na nga leen rëccal ñoom ñëpp ñoom ñoom prisonniers yi ñu tëj. nee na saa yoo yëkkatee sa loxo ngir ñaan na nga ñaan doom yi nga xamee ni fukki doom yaak benn yi nga xam ne dafa am benn bu ci focc cey kooku Yusuf la waay. doom jooju sori baayam sama doom la ndax Benyamin yaa ngi dégg loolu sa mbokk mi Yuusuf loolay waxtaanam taq taqale ko taqale ko baayam moo ko métti bàyyi dalal Yuusuf na lay wuti Misra la muy wut kaso moom tamit hmm? mais waaye li ma jaaxal mooy melokaan yi mu wax yëpp melokaan Yuusuf la benn mu ni muy Yuusuf wala muy muy ku niroog moom rek nee na ma it moom. Euh, wax na it ci wàllu ci wàllu xilaafa gi yi nga xam ne ñooy wuutu seen baay waaye tamit mi ngi wax ci li nga xam ne mooy branche boobu guddee ko ci ñoom yàlla na yàlla na nga ko génne ci kaso bi ca may ko defeelu baayam yàlla na nga may baayam xéewal man koo gis góor gi day suñu ma ña mayee ndigal daal dama bëgg a dellu yàlla aar la musal ci lépp lu bon bët yi maa ngi ñaan mu nekk bët yi nga xam ni muy bët yi nga xam ni mooy bët Yuusuf sa bët yi muy bët Yuusuf yal na yàlla dajalewaat ci jàmm ak sàmm yal na yàlla sàmm leen caay ndeysaan raakallah ñaan wam solo la allahumma yàlla maa ngi lay ñaan nga faj aajo yi kooku nga xam ni dañ koo tëj ci prison bi kilifa gi ñuy wax takloo ca muy général moo bëgg a dugg si ah. ali al maqam al qaid takloo taxiyatan lil kaahin al a'zam ali al maqam al ixmaahu ñu ngi nuyu labbe bu mag bi al ixmaahu إله أهل مصر يطلب من جناب الإخماع لنا دعوته في الانضمام mooy sàkku ci alixmaahu mu wuy si ko ci woote boo xam ni benn genre cérémonie la ويزين بحضوره الكريم هذه الوليمة bu ko defee ñi ngi taarlu di kontaan ci teewaayu nee na mi ngi kontaan ci sa teewaay ca foofa ci benn daje boo xam ne invitation la boo xam ne ñëpp la ci invité yi mi ngi sàkku sa teewaay ñun sant nañu ci woote boobu mu ñu woo danañ ko wuy si nga xam ne mooy walima bi mooy mariage bi nag mën ngaa dellu. لماذا قبلت دعوته فقد يكون في الأمر مكيدة لا خير فيه est-ce que du ay pexe mu ne amuñu lu ñu tànn ñun loolu ñàkk a dem loolu fés kii la def lu jaaduwul la Saamin Xawti mooy kilifa قد أراد إلحاق الأذى بالحوسب قد نكون موقع تأمين في طريقنا وعدم تلبيتنا الدعوة وماذا إن كانت الدعوة في باد يمون عليه أن يكون للتدخل في حال حدوث أي مكروه Beria mun moom toujours day préparé loo dafa waroon a préparé loo xam ni dana moytu gaa yi dal suñ kaw mu ne daal na ngeen sàkk ay pexe yoo xam ni daal dana fexe ba amin xawte ba mën a def dara ci ñun. nee na ñuy dimbali amun ci dëkk bi yëpp taalibe bi ñëpp dañoo bari lool bari waaye boo xam ne amin amin xawte mën da dal seen kaw bari nañu taalibe lool. dem leen ngeen préparé seen bopp ñu dem ci mariage boobu nga xam ni moom la buur bi invité. gis nga seen xel dalul seen xel dalul de waaye mbokk yi ñu ngi noonu nag armée baa ngi noonu di jëli prisonniers yi parce que tey la war a def procès bi c'est-à-dire tey la war a jàkkarloo ci euh, diggante ñi nga xam ne ñoo doon jéem coup d'état buur bi. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy lappe yi ak yi ak binaalu ñoom lañ bëgg a jël si ak binaalu ak ak ak ka nga xam ne mooy euh, kimoon yi ñu waaw kon xaar la ñu ñu ñëw. فليستعد السجنان أبوبيس وبيناروس لمغادرة السجن. أبوبيس بيناروس nañ préparé génn kaso bi. cay ndeysaan. abu biis moo ko wax Yuusuf yëddagu na de abu biis dalalal sa xel. yajibu an taxdura inda Amin Xawtib lil muxaakama. da ngeen war a dem ci Amin Xawtib pour mu atte leen tey lañ leen di atte ah tiit naa abu biis ndeysaan. am na ndey deewi de. dalal gëmal ki nga xam ni gëm nga ko muy yàlla. boo desee ci àdduna bi. danañu dajawaat waaye tamit boo wuyjee sa borom toujours da ngay jiitu ñun ñu topp ci teel bis ñetteel bis bi li Yuusuf waxoon yëpp tey gis nañ ko am bis jugal na gaaw xasanam ndeysaan cër ay waay ndeysaan <laughs> allahu akbar allahu akbar ah ndeysaan deewi allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah waaye la ko Yusuf wax day da ngay daje tey ak sa borom subhanahu wa taala mbokk yi ana kan ci ñun bu malaaka bi feeñoon tey ci moom wala ñu xamal ko ni ko tey nga wuy ji yàlla est pare na pour dem ndaxte day daa metti sama doom di nga dajeeg tey yi sa borom préparé leen ci mu nii tey jii di nga génn àdduna gi fekk nga gëm yàlla loolu kontaan waa ji mi ngi wax Binarus nee na ko ah soo su ma dundee dee dinaa dem ba dajeeg ki nga xam ne mooy Binarus amin xawti ndax Youssouf du ngeen bëgg ma indil leen dara comme ni ko Moussa bu doon def doo leen indil ay teraanga ci kaso bi man ko man ah kay ñun bëgg nañ loolu Binarus ñaanal ñi yàlla. ngir ñu mucc ñun ñëpp génn ci kaso bi ni mu gën a gaawee mbokk yi ñaa ngi décroché na bu yàgg aku piis wala waaja ndeysaan bul tiit Youssouf day wax day waxul dëgg day fen dara du la jot man maa la wax loolu man maa la wax loolu Youssouf li muy wax dara amu ci kenn du la rey yow. رقبوني الكاهن استعد لقد حان وقت رقبوني yow mi nga xam ne yàlla bépp jógal heure dem jot na إلى أين؟ لا أدري جاء فرسان قصر الحوت بأعلى من هنا ñi garde yi jóge ci amin xawri jàppale ba ñoo ñoo ñoo ñoo ñëw pour jël si la yeew leen ko ay chaîne سوف ندعو لك يا أبو بيس yal nañu ñaanal yow apu biis bul ñàkk yaakaar yow yaa tax ma gëm yàlla yow Yusuf dinaa fexe ba sàmm ngëm yàlla googu ma sàmm di nga delloo ci amin xawte place ba nga amoon da nga koo jëlaat amin xawte gis na gisante nañ benn yoon soo demee nag ni nga ma fa tudd soo demee nee ko Yuzarsif deful dara ci kaso bi ah. su ma demee naa naa wax góor gi ni ko defoo dara naa la ko tudd uzkurni inda rabbik fa ansahu seytaan dikra rabbi allahu akbar mbokk yi dégg nga Yusuf li mu wax nee na ko soo demee tudd ma ca buur ba neel neel buur ba man def ma dara ndax buur bi bàyyi ma nee na ko ah yow kay amin xawtiif li nga sukkandiku ci li nga wax daal lay bay ak neexoon ñun nga li nga sàkku ci amin xawtib ñun ñu sàkku ko ah lu xew doo wax góor gi damin amin xawtib dana la génne dana la muccal ci kaso bi dana la muccal de ah Yusuf xam na ne juum na. waaye man man xam naa ku ku gën a man amin xawtib lan moo tax sàkku ma pour mu xettali ma ci kaso bi may ñaan keneen ku dul yàlla mu may xettali ci kaso bi allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi jum na de allahu akbar sàkku ndimbal ca buur ba sàkku ko ci yàlla fàtte na fa ansaahu shaytaan dikra rabbi loolu yàlla wax qaalu udkurni inda rabbik fa ansaahu shaytaan dikra rabbi nee na waa ji tudd ma ca buur ba fàttaliku ma fa ndax buur bi fàtte bàyyi ma xel daal may jéemee ci kaso bi yàlla mu ni seytaane moo ko fàtteloo yàlla ba mu sàkku keneen ci ndimbal pour ma xettali ko ku dul yàlla waaye Yuusuf xam ne def na njuumte de gis nga jumte woowu mu def mbokk yi lim koy jural di ngeen ko xam moo tax nitu yàlla ku àgg ci benn martaba bi juumam bokkut ak nitu simple waa kii du kii moo nii labbe bi moom. laa tatadaahar bil xamaaqati wal jahl. yal na ngeen fi def ma ne bul dof dof lu fii lañ la wax. yaa tëj nañ ñu ay weer yéen ñi taxoon ñu tëj ñu muy muy labbe yi kenn ñëwul xool. daa moo tax ñu leen laaj. lan moo ñu xamal ne yéen a ngi ci kaso bi yéen da ngeen doy yéen yéen a tax ñu nekk ci kaso bi bu dul woon liñ may yeew dinaa la mbëkk naa la naa la jaxase fii yooyu hmm? yéen a doy di yaa soof ñu ngeen sàkk seen pexe ba ñu tëj ñu ngeen di wax lan nee na ñuy wut leen ay morso ngeen muur ko seen kanam yi bu leen kenn xàmmee. gis nga góor gi doo doon jéem a jëllale waaye gars yi ñoom xam nañ ko ndaxte. Ah, moom mii moo moom la moom la Amin Xawti bi yab moom la labbe ba yabaloon pour mu ñëw fay leen pour ñu jéem a rey buur bi. waaye mbokk yi ah Seydina Yusuf nga li wax ki nga xam ni mooy dina rus comme que moom day mucc dañ ko bàyyi mun ko soo demee nag ma tudd fa ca ca buur ba. xamal ko ni ko ma dara ndax mu génne ma ci kaso bi bi ko ko góor gi fàttale ni ko yow kay am nga fausse cause ni ko pour ku la génne ci kaso bi am nga fausse cause ni ko mun ko loo wax mun ko loo wax muy ah kon de man jub naa am naa koo xam moo gën a dëgër moo gën a man ci xettal ci ku dul góor ba ma fàtte ko laa waroon a kii waaye waru mu yàlla waaye waru moon sàkku ndimbal ci keneen waaye déglu leen fii mbokk yi waxtaan bi nag apu piis هل تراك تفوهت بشيء حتى الآن؟ ndax waxoo dara ci suñu di mbir suñu diggante. mënu ma woon a dékku yar yi ma doon duma lépp laa wax feeñu feeñul ma dara feeñal naa lépp ni ko ah ba fàttali ko ba ba est-ce que bàyyi nga xel sa njaboot ak say doom la ma la ci waxoon. nee na ko yar yi ma doon duma moo génne xalaat yëpp li xew daal na ba pare. xam naa ne den daal yi ngeen doon def def leen ci li ngeen waxoon def leen ci dara nee ko passé ko ba léegi passé ko xam naa xam naa ni bu fekkee feeñal nga ñu dey waaye gis nañ dal sa kaw. قل إن الإقرار كان على أثر العذاب وأنك اعترفت حفاظا على حياتك بولتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد لن يقبل nee na ko mënu mënu mënatuma weddi waxoon na wax naa li may wax ba pare soo deful liñ la digal day li nga amoon yëpp di nga ko ñàkkaat ca danañ la fitnaal. nga de nee na leen yaakaar tasul ba léegi mën ngeen a weddi Yuusuf dalalal yow defoo benn bàkkaar yow tamit li nga def dara nekku ci yàlla dégg na yàlla kuy fuglu la damaa sàpp ci minaaruus mu tudd ma ca amin xawtib waaw léegi loolu kay moom da koy xamal ni ko ku set nga rek pour mu génn la ci rek est ce que waruma woon a ñaan keneen pour mu xettali ma man may sàkku ko ma xettali ko ci keneen koo xam ni nit la. ay waay sàggan naa waay. alxafla. sàggan naa. anta lam taqsid shay'an illa an laa yajhal alxakim bi amrik. yow loolu jubluwoo ci dara da ngaa bëggoon mu mu bàyyi set say mbir rek mu feeñal set set rek yàlla mi nga xam ne mi ngay gis xam samay sama set kon lan moo tax man may gëstu ci keneen di ko gaaral samay mbir maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma baal ma. maa ngi tuub di dellu ci yàlla allahu akbar juum naa de juum naa de allahu akbar mbokk yi bu doon ñun la doo ko jàppe dara waaye jëmm ji fi mu toll la nit ku nekk fa nga toll ci yàlla foofu la yàlla di toll ci yow fa nga toll ci yàlla tamit sab àtte foofu la ko yàlla teg ci di ngeen ci xam dara comme que moo doon wax nit ñi fii bàyyi leen xel yàlla dee leen ñaan yàlla dee leen sàkku ndimbal ci moom tey seytaane jumloo na ko ba sàkku na ndimbal ci keneen loolu nag moo ko jàpp fees xol ba ba dootul mën a lekk dootul mën a naaw dootul mën a nelaw ok yàlla yàlla may fii suuf toll ñu ñëpp ñu toll fa ci jokkoog yàlla waaye toll fa ci bëgg yàlla waaye toll fa it bi yéege noonu suñuy bàkkaar wastafrigi dama min aynin qadim talaat min almaharimi waldam ximyata nadami loolu la borom eh, imam Busayri wax ma tatlubunahu min alxalqi huwa mawjudun kulluhu inda Allah li ngeen di sàkk ci mbindeef yi nag yàlla loolu ci ne muy fàttaliku la bàyyam doon waaraate tuskare ñeel na koo xam ni yaa ngi tàllal say say loxo say aajo di ko di ko kudul yàlla tuskare ñeel na ki nga xam ni dafa jàq te bàyyi fa yàlla di woo keneen tuskare ci ñeel na ci bis bi nga xam ne ci la ñuy dellu ci yàlla fekk nag yëpp luñ suñu bopp yàlla lépp lépp luy tusaare ñeel ne tuskare ñeel ne tooñkat yi nga xam ni yàlla ci bis bi nga xam ne ci la yàlla yi atte tooñkat yi ak ñi ñu tooñ tuskare ci bis am na ci bis ba nga xam ni suñ demee ba yàlla dajalee jaam yëpp boole ñëpp na ku ci nekk moor laa delloo say xaq ku ci nekk it moor la atte ci say wax ak say jëf mbokk yi incha allah ma ngay ma ci xaatir la nga xam ne moom la ko bàyyi dénkoon la bàyyi jawaarate woon ba nga xam ni mi ngi ziyaare kooku ñu mi sax waaye ñu bokk ñu xool xadara bi mbokk yi xadara suñ ko waxee mooy ab jotaay rek ab jotaay bi mooy jotaay boo xam ne jotaayu ko yàlla la ndaxte ndax dangaa ñëw pour pour ñu fay ma sama njuumte gi ma def Yusuf dalal ana muttaliun ala xatiati bul jéem a rey bul jéem a lor sa bopp man damaa def bàkkaar bu mag sëriñ te man mënumaa baal mënumaa baal sama bopp dama baal sama bopp. min lutfi hadrati saaxib fi jotaay bii ngay gis mooy jotaayu dëgg bi nga xam ni àq Yuusuf lañ fi wane. ma ni kat la kan kan moo ma def ma gën a màgg ci sama baay ak samay mbokk yàlla yëkkati ko ko neex di suufeel ko ko neex kan moo ma teraloon ca pale ba ku ma defaloon ay xéewal yàlla mooy jox mbindeefam yi lépp lu lu ko neex ci ay kan moo ma musal ci buumi Zulayqa ak pexe waa Misra yàlla mooy musal jaamam yi ci def ay bàkkaar ak lu yàlla bañ kon lan moo tax may tudd keneen ku dul yàlla di ko wax samay mbir. te hmm? jotaay bii ma nekk. ndax warul woon mu def est ce que Yuusuf warut a mbéj boppam duma boppam. naa yaa rab yow sama borom man yàlla nangu naa. maa ngi ñaan yàlla mu baal ma. sama gàttañ li ma def. allahu akbar bu fekkoon Yuusuf deful njuumte jàqul ni mu jàqee jotaayu dëgg bi dana sàkku ci moom ak jéggal andi ko ci jotaayu dëgg bi. waaye tamit kon danañ ko génne ci silk ñi nga xam ne ay yonente lañ kon li ñu dogal ci li li waroon nag mooy Yuusuf war a def at ci kaso bi waaye bàkkaar bi tax na juróom-ñaari at yokkal nañ ko ko ci ngir Yuusuf dellu ginnaaw ca gàttañ li mu bañ ko defati waaye tamit yàlla daf laa dénk nag nga yor responsabilité pour war a jubal waa kaso bi ndaxte da ngaa war a am ay taalibe yu bëri la topp ci kaso bi mu ni d'accord naa ci loolu. bu fekkoon sama dund gépp lañ ma tëjaat sax baax na waaye man daal li ma bëgg rek buñ ma doon tëj mooy bu ma yàlla mere rek na ma yàlla bal rek allahu akbar ah mbokk yi yéeme yàlla jërëjëf sant naa la gërëm naa la naa la yàlla allahu ah, mbokk yi ma bokk waa ji nee na ko Youssouf at rek nga waroon def ci kaso bi waaye juumte gi nga def mooy sàkku ci ndimbal ci keneen ku du yàlla dana tax yàlla dooleel na la juróom-ñaari at muy juróom ñett at di nga ko def ci kaso bi allahu akbar ca benn at rek la fa waroon def. ah mbokk yi gis nga day lu yéeme ngi nii xoolal daan biñ ko daan xoolal sanction biñ ko teg benn at la waroon def ci kaso bi waaye njuumte gi mu def mooy sàkku ci ndimbal ci kudul yàlla tax na yàlla yokkal ko ci juróom-ñaari at muy juróom-ñett at yoo xam ne Yuusuf na ko def ci kaso bi ah mbokk yi bu doon kenn ci ñun loolu mooy sirk bu doon kenn ci ñun def na bàkkaar xoolal ñun li ñuy xëy di def ay bokkaale di ñaan ko du yàlla waaw nee na ngeen baal ma nag sama gaay yi yàq naa seen nelaw la baal leen ma de allahu akbar ku yàgg sóoraale ak nit la ñu ngi nañ ñaan yàlla li nga xam ne may nañ ko ci toroxlu ak ngëm yàlla mu bañ koo rocc allahumma la tuzigh qulubana yàlla di leen wax ni yàlla yàlla boo jëngal suñ suñ xol yi ginnaaw bi nga ñu jubalee yàlla ñu may Euh, yërmande ju jóge ci yow yàlla yow yaay kii maye ñaan boobu la wax rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab mbokk yi ñu bàyyi xel ñaan Yuusuf di joxe ñaan yëpp ci yàlla lay jógee boo demee ci alxuraan da ko ca fekk nit di ko ñaan doy na sëkk nit di ko ñaan doy na sëkk waaw waaye mbokk yi gis ngeen sanction bi ko yàlla teg benn njuumte bu mu def yàlla pine ko ci benn at yokkal ci juróom-ñaari at at yoo xam ne dana ko toogaat ci kaso waaye Yusuf la mu wax mu ne yàlla d'accord naa ànd naa ci loolu nga ma teg gërëm naa la sant naa la waaye yàlla fekk mere woo ma nag baax na sama dund gépp buñ ma tëjoon sax baax na waaye na nga ma baal rek allahu akbar ndax bàyyi ngeen seen xel bu baax a seen bopp ndax ba musiba bañ a dal suñu kaw mu ne waawoo ñëpp ngay gis yu ay arme lañ yor jaafeeg ñëpp yor nañ ay nee naa leen nañ tasaaroo ci biir nit ñi nee naa leen tamit bu bu dara ah buñ naree dal suñu kaw rek nañ song génne seen seen i jaas ak seen i yëpp xeex mu ne yow nag na nga jéem a saytu sa bopp waaye bul gaaw a mer na comme que yaa jiite mbir moom bul gaaw a def dara ah ñu ngi fas yéene nag jàkkaarloo ji ak buur bi amin xawtit mbokk ñu bàyyi xel bu baax nit ki daa war di ku nekk ci ñu may toog ci jot ci ruq ana man mën a kan ruq ma ana mën a kan natt sa bopp surtout ci at mi ñu toll. ñu ngi ci at mu bees waaye mbokk yi ñu bàyyi xel lan xoolaat suñu bokk nag nattaat suñu bokk ci suñu ngëm yàlla fuñ toll suñu diggante yàlla ñu xisaab suñu bopp rek la suñu bokk euh, bala muy paase mbokk yi laaj na leen seen jaas yi nag seen arme yi hmm? mel ni xaw nañoo tiit nag préparé pour wala mosu ba naree dal nga fayu war nga ñëw ñu la indil say arme indi say jaas indi say ngànnaay ñaa koy xajal muy kii mbokk yi ñu bàyyi loolu xel euh, nit ki bu dundee ba at ma jeex da war a nag xisaab sa bopp xool at mi par at mi nga génn lan nga ci defal yàlla yan bàkkaar nga ci def nga jéggalu ko la nga ci def ci yiw nga yokk wóorgóorlu sa diggante ak sa borom kon ci lañ toll nii ku ci nekk nga def muhaasaba euh, bu tam xarit ñëwee tamit la cee sunna lenn rek la mooy woor bisu tam xarit bi ak bis ba nga xam ne moo ci topp na ko ñëpp def mbokk yi yonent bi ku ko def yàlla jéggal a bàkkaar at mi passé kilifa gi nga xam ne mooy booru miska yàlla ji mag ji amin xawtib mi ngi dugg si gis ngeen boor bi buur bi dugg si na mi ngi noonu nag euh, invitation ba ñu joxe woon mooy dañ leen invité ci benn cérémonie boo xam ni mariage la. mbégte googu aliqmaahu labbe bu mag bi ci yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci misra mooy labbe bu mag bi ñu ngi lay dalal ci ceet gi tey ñu ngi màggal ki nga xam ne mooy yàlla ji amin xawtib saalis di ko nuyu ki gën a màgg ci attey attekati waa Égypte est-ce que tur yu nga ñuy wooyee dëggantaan est-ce que gëm nga ko yow لا شك في ذلك أبدا وكل ما قلناه يعكس حقيقة كل حكام مصر من يحظون بمقام نصف إله li nga xam ni gis-gis yi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko am ci labbe yi ak yooyu xanaa war leen joxaat seen cër ñoom ñëpp dama leen di laaj yéen bu fekkoon kenn ci yéen sàkk na ay pexe pour jëm ci yéen wala war a dal seen kaw lan mooy atteem ban atte ngeen koy atte bu kenn sàkkoon ay pexe pour dal seen kaw faagaagal leen lan mooy àtteem. نحن نظن أن نميمة مريديس قد ملأت ذهن عالي المقام بالكلام ñu yaakaar ni ñi nga ay ay rambaaj lan tey wax lu bon wax yoo xam ne ay waxi caaxaan la yooyu daal la wax loo xam ne tegul fenn. waaye nag na sa xel daal yow kilifa gi ñooñu nga xam ne ay rambaaj lan wax yooyu ñuy wax loolu teewu tamit ñu ñu ñu jox la respecté bi ñu la war a jox jox la ceer bi la war a jox xibaar yooyu nga xam ne ñu ngi koy indi nag xibaaru yàq la rek bu ci gëm dara. gaa nag góor gi dee ngi jéem wëlbatiku moom ci bopp rek la ñuy waxee ndeysaan awa dindi leen ma xëy ñu xool ñi ñooy ñan seet gaa yaa ngoog de اليوم سنقدم عرضا في حضور أشراف وكبار مصر tey nag dañuy gaaral ci kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bi ñu ngi ci teeru ak a tatagal kilifa yi muy alixmaahu badiyaamun afupiis binaaruus ñooñu lañu war a àtte tey ñooñu lañu war a pool seeni mbir alixmaahu nag ndax xam nga ñi waaw bu ma juumul daal ñaar ñi nga xam ne ñoo doon nandal buur bi ak ki yoroon lekk buur bi ñoom ñaar la. ndaxte xam nga li ngeen seqoon ban ndax mën ngaa wax li nga seqoon ak ñoom wala ñoo ñu wax li xew ñëpp dégg waaw li ngeen seqoon li ngeen doon jublu. wala tarbitu bihima ala lii nga xam ni moom la église seq ak ñoom mooy gëm gi ñu ko gëm amun amul beneen leneen luñ seq dañoo nekkoon gëm nañu ah, kii doon ko jaamu. هل تنكر علاقتك الأخرى بالمعبد وبجنازته؟ yow loo xam ci mbir mi. هيا أخبرني am nga am loo ci wetti wala am nga leneen leneen lu ngeen seq lu dul loolu. عن العلاقة بألخ ماهوت. déedéet man xawma loolu xawma ko de amu amu beneen beneen beneen beneen beneen seq luñ seq. ban pexe mooy pexe mi nga xam ni doon nañ ko sàkk ngir ah, ah, buur bi amin xawtib déedéet da jóg jóg maa ngi moom seexuñu woon lool de lu jëm ci buur bi moom waaye yow nangu nga ko bañ la tëjee ca kaso ba nangu nga ni ñoom ñaar ñoo la joxoon alal ju bari ay junni ci or pour nga pour nga ay buur bi loolu ñu bari seede nañ ko ca ca kaso ba. waaw ah, weddiwuma loolu nangu googu ma nangu woon ca kaso ba. mooy duma yi nga ma doon duma léegi nag li nga doon sàkk pexe bi nga doon moom laa wax lan tax nga nga waxoon ko ba ko nee na sequma ak moom dara alex maahu sequñu dara ah gars yi kontaan nañ ci benn bés ci daal damaa déggoon ni buur bi day waaj benn xare bu ko defee ma bañoon mu rey ma ma daal di ma daal di gaaw njëkkante rey ko man. أنت تعلم أن عقاب من أراد السوء بحياة الحاكم هو الموت بلا شك xam nga ba xam nga ni képp koo xam ni da nga doon sàkk pexe pour rey buur bi rek mooy dañ lay rey ndax nekk ndax gënul nga wax li xew rek ndax ñu mën leen a fay ñoom tamit seen i jëf nga bañ a nëbbatu waxal dëgg rek nga dund dund gu wér ñu bàyyi la nga dem moo gën ngay nëbb seen biir ah Potifar yow loo bëgg a wax léegi. Hmm? yow yaa ngi léegi nag yow da nga bëgg ñi nga xam ne dañuy liggéeyal église bi nga bëgg leen ñu def ay nga bëgg leen a tuumaal ci wax joo xam ni tegul fenn ca ñoom wax nañ ci kanam nit ñu ni def sequñu dara léegi nag bëgg ñu seq ak man dara xanaa nag wax bëgg leneen nee na bu seen xel dal hmm. ba tey gaaral bi jeexagul ate bi jeexagul des na keneen des na meneen élément am na keneen ku ñuy jëli de kon ñoom weddi nañ fi nekk nii ab bis mu weddi na weddi na la waxoon weddi na ko ceet tet tet moom xam na dañ koy rey nee na may jërul may feeñal gaa yi ah kii mu ne ngoom nag ndeysaan état ku yéeme leen mbokk yi حسنا جناب كيموني ما الذي كنت تفعله أمام سجن زويرة ولماذا كنت تبحث عن أبو بيس loo doon def ca kanamu kaso ba lan moo tax nga doon wër abu bis mi soxnaam moo ma yóbbuwoon ak ay doomam yi nga xam ne dañoo jaaxle woon ah bëggoon koo gis gisatuñ ko léegi nag ma ne woon naa dem pour seeti seeti ko pour andil ko ay xibaar ba ma demee ba ca kaso ba nag. ñu gars yi dañ may jàpp nag dugal ma ci bi waaye man def moon dara dama ko doon seet rek ak njabootam ñoo jaaxle woon nee na ko waaye moom nangu na ni ab office moom nangu woon ne yow mi yaa yow mi yaa ko yaa yaa yaa yabaloon yónnee ko jógee ci ab kii pour ñu ray buur bi nee na ko ni ngeen noonu loolu moom ni ko ni ngeen ko xamee rek nit ku ñuy tiital moom mën naa tax wax loo xam ni sax du lu mu ah daa mel ni waa ji enquête am dëgërul de kon da ngaa bëgg a wax ni amoo woon benn relation yaakaar bu Pays ak Bélarus amul lenn loolu def pour fexeel ma pour rey ma loolu nga bëgg a wax déedéet loolu loolu du amul lenn lu ñu seq ma ak ñoom dama seen njaboot rek moo ma yabaloon ma dem di leen xool yow nag abu Pays est-ce que dara boole wala ak ñii. kéemoon yi ak alexmaaw déedéet kilifa man dara sequma ak sequma ak ñoom dara kéemoon yi tamit mu sequñu dara alexmaaw tamit dara hmm? yow kon nag doon sàkk ay pexe ah yow dong ah kay ginnaaw rus man ne man xamu ci woon dara mais wax na dëgg nag ginnaaw rus wax na dëgg moom amuloon benn xam-xam ci loolu man maa tëraloon plan bi man mii la woon man maa ko jëlal damaa sàkk woon ci moom pour ma dimbali ma pour ma rey la. waaye moom mu daal leen di xamal mbir mi looloo tax ngeen jàpp ma. Cheikh Tidiane gars yi kontaan nañ gaañ nañ procès bi gaañ nañ ko. jóge leen sama kanam bala ma leen ma leen mer di dal seen kaw jóge leen ñii na gi ñu ragal léegi moo tax nga mucc yow beneen yoon soo jéemee benn pexe pour dal sama kaw dinaa xam na laa jëflanteeg yow. sori leen fi ay wax dem leen seen yoon tàppatu gaa yi daal moo tax ngeen kii nii dañoo ragal rek moo tax moo tax feeñu lañ leen dina nag ak war la jéem a dal ci kaw yàlla ji ñi ay yéefar lañu ñii dañuy jéem a doyadal yàlla ji amul ñii faw ñu fay leen ah kon nga yéen yéen a doon yow da ngaa joxe sa. Eh, alef maaw ci sa bopp joxe sa bakkan yow mën a mën a wax dëgg rek nga mucc dund baa ngi wax loolu dëgg te nag sama dund ñàkk naa ko bu yàgg sama njaboot moo tax ma ma sacrifier sama dund sama njaboot laa doon bañ ñu rey leen ah leer na kon moom xam nañ ak ragal rek njabootam nga mën sóoraat ndeysaan moo tax moo tax innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna yàlla na leen seen doom yeeg seen njaboot ak kii la ay ay ab nee na ko Binaarus moom gor bàyyi nañ ko waaye ab bis eh, Binaarus moom danañ ko takk ca kaw yeew ko ca kaw yow yow mi ci des na nga dem da nga xam ni yéen ñëpp bis bu ngeen sàkkatee benn pexe danaa leen takk ca kaw comme ni ma programme def ab bis rey leen yéen ñëpp gis nga kon kooku kooku la ñuy génne. kon léegi atte bi li mu tëral mooy abu euh, Binarus moom mucc na léegi day delluwaat jëlaat fonction am jëlaat place am waaye ki nga xam ni mooy abu piis moom dañ koy yeew ci kaw dañ koy yeew euh, dañ koy pendre dañ koy takk ci kaw rey ko loolu mooy atteem gis nga buur bi xam na ni procès léegi nag gaaral bi jeex na atte bi jeex na ñun ñëpp génn fii génn leen ñun ñëpp ndaxte enquêteur bi enquête am dafa des maanaam ki doon def euh, avocat buur bi ca mooy Potiphar façon enquête bi mu def baaxul parce que question yi ni mu ko posé ni mu posé ni mu laaj a laaj leen fi yéen ñëpp Amin Xawtib gaañee na ma ñoom ñi nga xam ne ñu yor ñoo yor église bi gaañee nañu ne ñëpp génn bëggatuma fee gis kenn mer na ndeysaan waaye sa waaye am na njàqare de ndaxte moom avocat bi daal ni mu doon ni mu doon ni mu doon laajee laaj dafa des ah. enquête bee des. engrais bi yëpp baaxoon na ba normal ah. mais li desoon mooy suñu maap baaxul kilifa gi xanaa du yaa ma doon nandal yaa ñu jox ndox ñu ñuy naan ah kay ah kay waaye léegi ana li ñuy ana suñu naan jox ñu ñu naan waay allahu akbar mbokk yi kon maa ngi jëm ci liggéey la comme ni ma ko daan defee. mbokk mbir maa ngoog gis nga day allahu akbar luy fi waxoon yëpp dëgg la nee na ko di nga dellu jëlaat sa place ci même bis biñ ko attee ci lañ ko jox loolu nee na nee na gàcce gi ma am yaa ma ko teg yow Côte d'Ivoire suñu ministre bi nga xam ni moom lañ joxoon pexe yi dara mënu koo leeral ci mbir mi mer na li ñu bëggoon mu leer ca da nga woon mbir mi leer na ni jant ba pare fi nekk dara leeru fi teg nañu gàcc. ah mbokk yi buur mer na de. yaa ni woon lépp baax na ni mu ko defaree mat na yaa ko waxoon.